faslu li ab dog la moom day aju ci fil janaa isi maanaam ci xeeti tàdd yi aju ci ku génn àdduna nañ koy waajale ak nañ ko julleeg nañ koy jëbbale boroomam ab jullit bu génnee àdduna te fekk moom ba muy faatu wóor na ne àndaale woon na bakkan dañ caa bëgg a génne du juddu du mën noo dogu ne àndaale na bakkan kooka deesu ko sang deesu ko sang dañ ko raxas rek bu daqee deret ëmb ko daal di suul te it jullit boobee faatu faatuwul ca jihaad ja ca xare ba ku dee ci jihaad dañ noo jox ndigalul bañ koo sang te la dooroon ci yére bu doyee rek xam mën na koo sang ñu sàngi ko ko bañ caa dolli leneen mën na noo far wax rek ci wax yi ne gën a yomb takk ne lay tax doomi aadama ja faatu ñu war koo sang war koo jullee juróomi sart la bu jëkk ba mu doon jullit ab yéefar araam na sang ko mbaa jullee ko ñaareel ba mu wóor na ne àndaale na bakkan ca ba mu juddoo ku juddu te àndaalewul bakkan kenn du ko sang kenn du ko jullee bu taqee deret rek laxas deret ja ba noppi nag am ko ci morso suul te ñu taamu ñëbbu ko ca armeel ya dañ koo suul ca kër ga sib nañu nag ñu di ko sang mbaa ñu di ko jullee ñetteel ba mu bañ a deexee ci xare bu lislaam ku demoon ca xare ba faatu ca doon ci sax jotoon a xeex ak fett rek moo ko dal mu daal di faatu laata muy dugg ca xeex ba wala ab jullit ne moom moo ko rey ci kaw defe woon ne bi yéefar la mbaam barasi ko ci kaw daanu ci suuf it dañu jàpp ne shahid la dafa deexe ca xare bu lislaam ba dana araam ñu sangu ko dana araam ñu jullee ko ñeenteel ba mooy mu bañoon a fekk ñu jullee ko ba noppi ku ñu xës jullee ba noppi dañu sib ñu baamuwaat ko di ko julleewaat juróomeel nag mooy néew ba la ëpp ci yaram wa na fa teew bu fekkoon ne awab da koo jàppoon mbaa bu doon lakk ba lañ gis ci jëmm ja boo ko defoon ñetti xaaj la manqué ëpp ceer ba maanaam daal boo ko defoon ñetti xaaj la ca manqué dana ëpp lu toll ne benn ba muy ceer ba li gën a gàtt mooy nga ne rek bu fekkee lañ gis ca yaramu néew ba daal matul ñaari ceer ya dañu daal di sib ñu sangu ko mbaa ñu jullee ko kon ka faatu bu dee ab jullit ci ni ñu ko waxe ñu sangu ko nit ñi sangoo janaaba te it ndox mañ koy sangee doon ndox mutlaq maanaam ndox ma ñuy jaamoo yàlla du nekk mu sotti ko ci genn wet doo mënta jaamu yàlla sange ko noonu mook jullee ko bala ñu koo suul lu ci nekk fardu kifaaya la maanaam faaw war naa am ñu ca taxaw def ko bu ñëpp seetaanee kenn bañ koo def ñëpp bokk am bàkkaar bu ci ñenn ñi taxawee rek ñëpp seen jan wàcc na jëmmi sàngu ko ak suul ko moom dañ caa dogu ñëpp maase ca ne lu ci nekk fardu kifaaya la yaar itam amoon nag wóote muy sang gi ak julee gi wax ji gën a wër nag mooy ñoom ñaar itam fardu kifaaya lañ moo tax mu dogu ci moom ne moom lañu daal leen di nuróoleeg sang ga ak suul ga su fekkee mëneesu ko sang kon nañ ko tiimal dana wax ci kanam nag lay tax ñu ne mëneesu ko sang ak su boobaa nañ koy tiimale ñaar ñoo xam ne dañoo seqoon ab sëy bu kenn ko génnee àdduna ka fa des ne maa koy sang duñ may kenn xëccoo ko moom bu ko kenn bëggee xëccoo moom attekat bi atte ne ko yow mi doon sëy ak moom ba mu génn àdduna yaa amee sañ-sañu sang gi waaye day fekk nag sëy ba ci boppam wéroon na mbaa boog su fekkee wérutoon it yoon daa mujjoon dogg ne day bàyyi mu wéy ndax wéet am na maanaam may nañ bañ jote wala boobaak léegi yàgg na da nga jàng ca mbirum sëy sëy boo xam ne yoon da ko doon gàntuwaaye ndegam wéet xas na am day bàyyi mu wéy wala ndegam xas na yàgg day bàyyi mu wéy sëy yu mel noonu yëpp mook sëy ba wér na sikku ca ñoo yemoo ñaar ñooy sëy ku ci njëkk faatu ka des dund bu ne maa koy sang kenn du ko sañ a xëccoog moom bu ñu ko bëgg xëccoog moom rek attekat bi atte jox ko sañ-sañ ba ne ko yaa am sañ-sañu sang ko jamono yi jaam amee bu góor ga dee sang ba jigéen ja di ab jaamam te séquñu dara luy teem mën a joteeg moom ni ki jaam bu jigéen bu nekkul di jot boppam bañ ne féete na ak boppam nekkul di kuñ goree lennam bàyyi lennam bañ ne laal na ci ngor du buñ bokkaale kee moom lee kee moom lee moom daal sangam bii ko moom amoon na sañ-sañu di joteeg moom amul dara ci yoon lu ko aaye woon jote ga sang ba mel nii ak jaamam bu jigéenam boobee ku ci njëkk a génn àdduna rek ka ci des mën na koo sang la ci am nag mooy bu jaam bu jigéen ba njëkk yi génn àdduna sangam ba ne maa koy sang kenn du ko sañ aaye ne ko doo ko sang te nag jaam bu jigéen ba moom bu fekkoon ne sang baa génn àdduna mu ne maa koy sang bu neexee mbokk yi sang ba ñu ne ko déedéet nun noo koy sang te su boobaa kenn du ko àtteel moom jaam bu jigéen mu ne ko yaa amee sañ-sañu sang loolu moo tax mu teg ci bilaa xabda in ci lu dul àtteb àttekat su fekkee ne ka génn àdduna amutoon ku mu doon séyal du it jamono yi jaam amee bañ naa kenn ka day sangu moroom ma kenn ka di jaam moroom ma mu ne kon nañ seet ay mbokkam bu xëccoo amee ka gën a jege nañ ko jiital ne ko yaay sang ka gën a jege nag degam ki faatu góor la mooy doom ju góor bu jàllee sëtam bu góor bu bàyyi ko ci doom ju góor bu jàllee baayam door caa topp su bàyyi jàllee nag da nga cay teg mbokk ak doon mbokk door caa teg nag maam mu góor nga xam ne maam mu góor moom foofu mbokk ak doon mbokk ñoo koy jiitu mu door caa topp su maam mu góor jàllee nga tekki nag baay bu ndaw tegaat ca doomi baay bu ndaw noonu la ñu tegaloo bu fekkee ne ñooñu nga xam ne ñoo di ay mbokkam ñu tegalee ko noonu kenn nekk fa mbaa ña nga fa waaye daal dafa mel ne sawaruñ ca sang ga commerce naa seet ab jaabur bu góor dagam ki faatu góor la nañ seet jaabur bu góor bu ko mën a sang mu sang ko nga seetlu foofu ne bañ tuddee mbokkum góor itam ba bokk nag néew ba ndey ak baay wala baay moo tax ñuy wax waaye booluñ ci woon doomi rey maanaam ku bokk moom ndey rek boo tudd doomi mbokk itam ñaar ñi ngay tudd seeni doom waaye doo ci boole doomi mbokk mu góor ci wàlluk ndey ba tey buñ tuddee maam mu góor maam mu góor ci wàllu baay moo taxoon ñuy wax boolewuñ ci maam mu góor ci wàllu ndey maanaam ma jur ndey nijaay itam li muy jege-jege bokkutoon ci way asabal ñooñee nga doon tegale ñu ñëpp ne kon bokk nañ ci jàmbur ya ku fa nekk te mën a sang rek baax na góor gi faatu bu fekkee ne genn góor nekku fa jigéen rek fa nekk waaye nag jigéen joo xam ne araamante nañu am na fa mel ne moom góor gi faatu yaayam a nga fa wala doom bu jigéenam wala mbokkam mu jigéenam wala bàjjanam wala ndeyam ju ndaw kon aamanteem bu jigéen boobee na ko sang am na ñu ne ndegam moom jigéen ji mooy sang góor gam araamanteel bu sàngee rek la tàmbalee ci jumbax jëm bëtiwoom mu doy la ca des bu aajowoo mu di ko sàng day sàng rek la tàmbalee jumbax ba ci bëtiwoom daal di tàmbalee sang am ñu ne itam nag yaram wépp wépp lay sàng ba mu daj muy sang nag ca kaw loolee mu ko sànge xam ne jëmmi loxoom ci boppam du laal jëmmi yaram wa waaye dafa mel ne bu dee jigéen moom dañ koy may ci góor duñ ko may góor ci jigéen wax bu jëkk bi daal mel na ne mënees na koo topp mooy bu fekkee ne ku mel ne yaay mooy sang doom bu góor jëfaatu wala doom bu jigéen mooy sang bàyyam ba faatu bu sàngi rek la tàmbalee jumbax ba ci bëtiwoom loola dal nay doy mën naa daal di tàmbalee sang rek nañ war a sange ndegam nag góor gi faatu góor ne moom nekku fa jigéen jum aramanteel nekku fa jigéen joo xam ne mën nañoo sëy rek aramante wuñu moo fa nekk kon jigéen joojee day tiimal góor ga waaye du ko sañ a sang su koy tiimal nag bay raay loxo ya dana mën a jàll ba ca concee du yem rekk ci tikku jara yi da nga gis ne ca kanam buñ àggee ci nga xam ne góor muy tiimal jigéen moom buy raay loxo ya day yem ca tikku jara ya bu jàll ca concee waaye fii nag moom ndegam jigéen mooy tiimal góor dañ koy may buy raay loxo ya mu jàll ba ca conc ya nga xam ne kon ka faatu bu dee góora góor ne moom néewu fa jigéen joo xam ne araamante nañu néewu fa jigéen jum araamanteelul rek moo fa nekk kon ngaan tangoog luy tax ñi bàyyi cangaay la te tiimal ko rek yem ci ba tey ko faatu bu fekkee amuñu ndox muñ ko sange ba am nañ ko waaye lañ am doyut mbaa bu ñu ko ko sange it daañu loru ci lu ñu naan loru ju metti lool ba jéggi rayoo loolu ngànt la kon dañu koy tiimal rek su fekkee ne yaramu néew ba mënee su ko laal ndax buñ ko laalee mu daggutoo mbaa delloo ca kaw xolli ko nga xam ne mënees su caa sotti ndox dong sax buñ ca sotti woon ndox te raggoo itam maanaam bomboo du te yaram wa daggatoo mbaa deru yaram wa xolli ko kon dañ koy bàyyi te tiimal ko ndegam buñ ko tiimalee moom yaram wa du daggatoo du xolli ko su fekkee mënees na cee sotti ndox te deru yaram wa du xolli ko waaye nag buñ ko raggoon rek di bomb dér yaram wa xolliku kon dañuy sotti rek ndox ma te bañ koo ragg bañ koo bomb ba tey bu fekkee ña faat dañoo bari te ñooy sang bariwuñ nga xam ne kenn ku ci ne buñ bëggee bomb yaramam duñ mën a sang ñëpp kon dañuy maye kenn ku ne ñu sotti la ndox rek te bañ a bomb nga xam ne bomb ga farata la woon waaye wàcce nañ ko kay sang bu sottee ndox rek mu doy kon am na yett yu tax ñuy bàyyi cangaay la te weccee ko tiim bu njëkk ba mooy ñàkk ndox ñaareel ba bu ñu sottee ndox mi rek yaram wa daggatoo ñetteel ba buñ ca sottee ndox rek der yaram wa daal di xolli ko yooyu yëpp dañ koy tiimal te bañ koo laal dara ci ndox nga teg ci ne su fekkee nag mënees na koo sotti ndox te du tax yaram wa xolliku du tax yaram wa daggatoo kon ñu sotti ca ndox rek bàyyi te bañ a bomb su fekkee na it ña faat dañoo bari te ñooy sang néew it mënuñoo bomb yaramu ñëpp ba tey bu ñu sottee ndox rek mu doy lee mu weesu woon mooy bu fekkee ne góor moo faatu nañuy tegalee ña koy sang mu agsi ci jigéen mu ne jigéen moom su fekkee ne jëkkëram ja ko yoroon mi ngi fi wala jamono jaam xewee jigéen ji faat dafa nekkoon jaam te ab sanga moom nekk fi ñooñ ñaar waxoon nañ seen àtte ba noppi ca njëlbéen ga bu fekkee jigéen ji faatu nag amutoon jëkkër du woon jaam bu jigéen bu amoon sang kon jigéen ne moom jum bàyyi mu sang ko rek mu daal di baax waaye nag su fekkee ne am na xëccoo ñu jiital ka gën a jege teg ca ka gën a jege teg ca ka gën a jege ka ko gën a jege moom jigéen ji faatu mooy doomam bu jigéenam bu jàllee yaayam nga teg ca mbokk mu jigéen ma mbokkal ndeeg baay teg ca mbokk mu jigéen ma mbokkal baay doom teg ca doom bu jigéen yi mbokk mu góor ma mbokkal ndeeg baay teg ca doom bu jigéen yi mbokk mu góor ma mbokkal baay teg ca maamu jigéen teg ca bàjjanam boo xam ne mook baayam ñoo bokk ndey ak baay teg ca bàjjanam boo xam ne mook baayam ñoo bokk baay teg ca doom bu jigéen yi baayam bu ndaw ba bokk ak baayam ndey ak baay teg ca doom bu jigéen yi baayam bu ndaw ba bokk ak baayam baay rek noonu lay tegaloo soo déggee tegale bi rek day am xëccoo mbaa dara waaye su amul xëccoo rek moom ku sang mu baax su fekkee ne jigéen ji amul kenn ci jege ñaala yooyu mu des naa woo ab jaabur bu jigéen rek mu daal di koy sang su fekkee ne jaabur bu jigéen amu fa nag nga xam ne jigéen a faatu waaye jenn jigéen nekku fa góor rek fa nekk ñu seet góor goo xam ne moo jigéen ji faatu araamante nañu mënuñu woon a sëy loolu nag kon say boo jiital doomam ju góoram teg ca sëtam bu góor ba bàyyi ko ci doom ju góor teg ca baayam teg ca mbokkam mu góor ma bokk ak moom day ak baay teg ca ma bokk ak moom baay tegale tegale ba nga weesu woon ci gannaaw jigéen ji faatu ku fa nekk ci ñooñu rek moo koy sang bu ko dee sang nag moom dañuy wax ne day sang yarama ba mu daj muy raxas ci kaw rek noonu ba tey boo dee xool ar risala neex ba indi day nuru noonu waaye saraa ba tudd alfawaakihu addawaan yi day wax ne jubluwuñu nga fab mbalaan ma sànge ko ko di ko sang nag ca kaw mbalaan ma dangay fexe ba toxale mbalaan ma sa digganteeg moom nga xam ne say bët du tegu ca jëmm ja boo ko see fab saatir doxale sa digganteeg moom ba sa bët du tegu ci jëmmam rek nga laxaar nag sagar gu tal ci sa loxo daldi tàmbalee sang nag jëmm yaram wa waaye do waaye moom nee na loolu ñu wax ci sang yaram wa ba mu daj di ko sang ci kaw càngaay la moom du ko def dafa mel ne nag bu fekkee dañoo bañ rek mu gis jigéen ja mu sang la gën a gaaw moo ñu ne ko takkal say bët bu ñu góor gi takkal say bët rek te tiim ko sang mel ne mooy gën a jàppandi noonu ñu wax manees naa takk kon ne jigéen ja faatu bu fekkee ne jigéen ne moom jenn ji ko mën a sang nekku fa waaye nag góor gu aramanteel ni ki doom ji góor mbaa bàyyi ma nga fa am na ñaari waxin ci góor googee bu dee sang jigéen joogee na mu koy sange wax bu jëkk bi moom dafa leer lool mooy day sang yaram wa lépp lépp ba mu daj mu laxaar nag aw sagar wu tal ci loxoom di raxas nag nga xam lépp moom li ngi raxas rek ci kaw loolu mu ko sànge waaye raxasut yaram wa dëgg-dëgg ma ngay bomb rek ci kaw loolu mu ko sànge loolu mooy benn waxin bi ba des nag moom mooy day fexe rek ba bañ a gis jëmm ja maanaam ay bëtam bañ a tegu ci jëmmi jigéen ja muy sang waaye du sàng yaram wa loxoom la ragge jëmm yaram wa na fexe rek ba ay bëtam du tegu benn yoon ci jëmmi jigéen ja muy sang ndegam jigéen a faatu te jenn jigéen ne moom amu fa genn góor goo xam ne bumu araamanteel la néew fa góor rek fa nekk te mboolem góor ñu fa nekk mën nañoo sëy ci yoon kon góor ga fa nekk du mën a sang jigéen ja da koy tiimal rek te du koy tiimal it day raay loxo ya day yem ca fa ñu takk jara mbaa fa ñu takk montar bu gën a yomb xam waaye du jàll ba ca conc ya su fekkoon ne jigéen mooy tiimal góor moom waxoon nañ ne day raay loxo ya day jàll ba ca conc ya waaye nag fii nga xam ne góor mooy tiimal jigéen dañ ko may mu jàll ba ci conc ya du raay loxo ya day yem rek ca fa ñu takk montar ñaar ñuy sëy moom koo ci xam ne daa faatu te des di dund di ko sang dañu sopp rek bu suturaal la tàmbalee jumbax ba ca bëtewoon waaye bu ko suñu woon ba mu set itam lu tax mu aay dañoo sopp rek nag mu sang suturaal la tàmbalee jumbax ba ci ba teewam tey jamono yi jaam amee itam la ñu waxoon ci góor gi moom jaam bu jigéen ba te amoon na sañ-sañu jotee ñu waxoon ne ku ca njëkk faatu sa moroom mën na laa sang tey ku ca sang morooma dañuy sopp rek mu suturaal la tàmbalee jumbax ba ca pëti woom waaye du àgg nag ci war sopp rek lay doon bu ko suñu woon ba mu setit du tax mu def lu araam mu des nag boo xasee weesu ñaar ñuy dencante weesu itam sang bu góor boobee ak jaam bu jigéenam boobee boo xasee weesu loolu moom kuy sang nit ku ne dañ koy digal ci lu war mu sang la tàmbalee ca jumbox ba ba ca bëtiwoom ba faaw rek mu war a suturaan diggante boobu bu ko sañ a summi ba mu def yaramu neen yaramu kese loolu waru gar la woo xam ne mënta ñàkk ku mën di sang nit daal moom te ak sëy doxutoon seen diggante du it jaam bu jigéen ak sangam bu góor bu xasee wees ñooñu daal moom ku mën di sang nit day war bu suturaal la tàmbali jumbaxa ba ba ca bëti woon ya ndax nag sañ naa àggale loxoom ci boppam ci awre ja am déet daañu ko wax ci kanam